الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله نيجي delloo sant suñu boroom te di ko ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan suñu boroom jaami yàlla yi nga xam ne ña nga ca woon ca mooy ayaamul maalumaat di fukki fan yi nga xam ne ñoo ubbi tabaski ak ayaamul maadudaat di ñetti fan ya ànd ak bisu tabaski ba nga xam ne mi ngi war a jeex tey jii ci tàkkusaan yal na yàlla nangul ñu jaamu yen ca jaamu yépp te delloo si waat ko ci ñun fekk ñi ngi ci jàmm ak aafiya gannaaw loolu mbokk jullit yey ne ci jullit ñi at bu nekk ñu fàttali ko waat ajug yonent ba sallallahu alayhi wa sallam at googee nga xam ne benn at la ci dundam waaye teewul dañ koo tuddee ajug tàggatooga ndax keroog ba muy xutba ca Arafat bokk na lu mu waxoon nit ñi ngalla waay déglu leen ma bu baax ndax kat mën na am dootuma dajeeg yéen ci àdduna ci place yu mel nii ca la ubbee woon xutbaam la nga xam ne la ëpp ci imaam yi moom la ñu ubbee seen xutba te mooy fàttali nit ñi ne leen xam leen ne mboole mi cant day yàlla rek la ñeel ñun du ñu sant ku dul yàlla du ñu gërëm ku dul yàlla xamal leen ne it ñun jullit ci yàlla rek la ñuy sukkandikoo heure bu ñu defee bàkkaar ci yàlla rek la ñuy tuub dellu ci moom mu ne mi ngi ñaan yàlla musal ñu suñu ayu bakkan musal ñu ci ayu jëf yu ñaaw yi ñuy def mu xamal leen ne it ku yàlla jubal kenn mënu koo réeral waaye ku yàlla seetaan sag réer kenn mënu laa jubal mu ngi seede ni kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul yàlla te muhammad moom mooy jaamam di yonentam mu ñaari baat yoo xam ne jullit ñi dañ ko war a bàyyi xel yonent yàlla muhammad jaam la kenn du ko jaamu kenn du sàkku ci moom lenn loo xam ne nii daa nurug jaamu waaye nag rasul la moom mooy ki yàlla yónni mu war ñoo jàngal ni ñuy jaamu yàlla mu ne mi ngi ñuy dénk ñu ragal yàlla di ñu ñaax ci ñu topp yàlla mu ne xam leen ni ay yéen doomu aadama yi maa ngi leen di wax ay wax ngallaawaay jàpp leen ko mën naam dootuma daje ak yéen wax joojee mu waxoon wallahi gis nañu ne bi ñu defee déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 fekk réew yi daje nañu guerre première guerre mondiale deuxième guerre mondiale gannaaw ba ñu daje nag ne daal adduna bi war nañ koo tëral ci aw yoon te mooy xame ne nit ñi ñoo yem mbokk loole ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax jiitu na ñoom loolu ñuy wax plus de quatorze presque quatorze siècles yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk na lam jëkk a moytuloo xeet bi mooy la nga xam ne mooy bokkaale ca it amul lenn loo xame ne nii ah suñu borom tëral na ko ci jaamu yàlla lu dul rek loolu day dàq bokkaale bokk na ca aj makka comme na mu ko sante woon ibrahima alayhi salaam waaye bokk na ci julli yi ñuy julli it fi ngay waxee allahu akbar ba assalaamu aleykum lépp la muy saxal mooy yàlla kenn la su ko defee jullit mooy ki nga xam ni yàlla kenn la ci xam kumpa yàlla kenn la moom rek mooy ki sell ki moom rek mooy jubluwaay bi jullit du jublu ci keneen ku dul yàlla du mel mukk ne yéeféer yi jullit du mel mukk ne yéeféer yi nga xam ni ñoom dañoo jàppoon ni malaaka yi day ñu baax lañu ak usa ko baax la kon ñu ne ñoom nañu jaare ci ñoom ngir am ngërëmal yàlla loolee mbokk jullit du ko def jullit du jàq di woo keneen ku dul yàlla jullit du yaakaar keneen ku dul yàlla jullit du ñaan du ñaanalante keneen ku dul yàlla mi ngi noonu jàll wa ala waaye bokk na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam loo xamee ni nii leeraloon na ko xeet bi mu ne ay yéen jullit ñi xam leen ne lii di seen borom benn la waaye seen baayit benn la amul kenn ci arab yi ku gën ku ñuul amul kenn ku weex ku gën ku jaune yéen ñépp ca aadama ngeen jóge ca aadama ci suuf la jóge maadaama ci suuf la jóge looloo tax suñu borom yàlla couleur ay doomam melokaanu suuf suuf danga cey gis lu ñuul lu xonq lu jaune ila axiri waaye ngënal ba nekkul foofu yonent bi alayhi salaam mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla bàyyi leen di puukaree wonte seeni xeet daawuha fa innaha muntina yonent bi alayhi salaam ne na bakkoo say maam loolu dafa xasaw doomu aadama bu doyee di rek mooy bakku ci kaw yeneen ni moromi daamu aadamaam ci loo xam ne moom defu ko boo weexee weexuloo sa bopp boo nekkee surtout la la joor du yow yaa ko def sa bopp boo nekkee kum mën a doon du yaa ko def sa bopp kon yàlla mooy def lu ko neex pourquoi nga koy pookare woo kii mel nee mu mel de moo ko ak doye dem moo tax mu ñuul du doye dem moo tax diw nekk maamam kon ki gën mooy ki gën a ragal yàlla bàyyi leen puukarante ci ay famille loolee yonent bi aleyhi salaam mu ne lu bon la waaye gannaaw loolu it mbokk julit yonent boobu xamal nañu ne seen deret yi day lu xaraam la julit du rey mbokk julitam julit du tuur deretu mbokk julitam waaye seen alal yi lu xaraam la julit du lekk alalu mbokk julitam lu dul ci teeyu bakkan islaam tere la nga xam ne mooy riba tere la nga xam ne mooy carte tere la nga xam ne mooy sàcc tere la nga xam ne mooy truand tere lépp bañ a fay tere bépp bunt boo xamee ne nii jullit dañ ca lekk alalu moroomam borom bi mu ne wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekk leen te seen alal ca la nga xamee ne nii mooy ak neen waaye noonu it la lislaam sàmmee deru jullit mbokk julit du xas mbokk julitam julit du tuumaal mbokk julitam julit du jëw mbokk julitam julit di rembaat ci mbokk julitam doo def lenn loo xam ne soo ko waxee wala nga def ko ñu xeebe ci sa mbokk julit déedéet mbokk julit julit du def loolu abadan doomu aadama yi dañ leen a war a sàmm bi ñuy dund dañ leen a war a sàmm même bu ñu deeyee ki nga xam ne day dund du dagan mukk ñu tuur tuur deretam xanaa dadul moom bakkan boo xam ne daa rey bakkan walla koo xam ne mës naa say njaaloo walla koo xam ne daa génn ci diine yàlla ci gannaaw loolu itamit mbokk julit doomu aadama yi war a xam ne a ku nekk dafa war a sàmm boppam waaye sàmm moroomam li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say moroom sutura ak jàmmal bi nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say moroom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni suñu ngëm du mën a mat mukk lu dul ni ku nekk ci ñun la mu bëggal boppam luy bëggal moroomam même buñ demee ba kenn ci ñun faatu islaam lan la wax ay yéen jullit ñi même bu dee amul fi benn mbokk wallahi bu ñu amoon chinois jullit bu faatu tey jii fii wareef la ci ñun ñu dem jël ko sang ko sang ko taxaw ñaan yàlla jéggal ko ay bakkaaram dem suul ko loolee la ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax su ko defee jëf yu ñaaw yam doon def ñu fàtte ko di ñaan yàlla subhaanahu wa taala jéggal ko lii lépp mbokk mi ngi noonu jullit ñi dañu war a sàmmante respectante wóoloonte ci seen dund waaye wóoloonte itamit ci heure boo xam ne dañoo dee lii mbokk yonent bi aleyhi salaam keroog wax na fu lu jëm lool ci wàllu jigéen ca jamono jooju mu koy wax fekkoon na waa Occident ñoom toog di réunion naan ndax jigéen moom nit la wala bàyyuma la ala kulli xaal benn àq joxuñu ko ko woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne nag seeni soxna am nañ ci yéen àq yéen am ngeen ci yéen àq jël ngeen leen ci kàddug yàlla ngalla waay sàmm leen loolu wareef la ci ñoom ñu topp leen waaye bu leen soxna yoo toppee bu leen am yéen it la nga xam ne mooy jalgati jéggi dayoo gi ngeen def ci yéen dalal xelu jullit jigéen ñi ci ne leen yéen góor ñi yéen a yem képp ci jaamu yàlla li rijaali nasibun maktasabu wa li nisaai nasibun maktasabna jëf bu baax bu ko góor defee jigéen def ko lañ leen di fay moo yem ca yàlla képp lu bonit naka noonu kon ci mbiri àdduna rek la yàlla joxe kilifteef góor ca loolee kenn mënu ko bañ jullit nga ak yéeféer lum mën a doon fokk mu am ku jiite am ku topp ci gannaaw sinon mbir ma du du sotti du dox lii mbokk da ngay gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nii wax na lii it wa bàyyiloo ne xel ñuy sàmm la nga xam ne mooy jukko yi lépp loo xam ne day yàq xelum doomu aadama sàngara ya ca drogue ya ca lum mën a doon mbokk jullit dafa war a moytu loolu jéem a am jukko yu rafet ki gën ci jaami yàlla yi mooy ki gën a rafet jukko ki gën a bon mooy ki nga xam ne dafa ñaaw jukko loole bokk na lam ca mujjee sallallahu alayhi wa sallam ay yéen doomu aadama yi teg naa leen bàyyi leen ci yoon boo xam ne day su ngeen ci jaaree du ngeen réer ba abadan ca mooy téereb yàlla bi ngalla waaye ngoy leen ci téereb yàlla bi mu ne leen mbir mi ma indi di sama diine ji nga xam ni keroog la yàlla wàcc ci moom ne bis na ki tey day matal naa diine ji bis na ki tey mottali naa ko nii laa gërëme ngeen jaamoo ma ko alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina mu ne leen nag xam leen ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp koo xam ne yaa ngay jóg di jaamu ji yàlla defe ko nu safaanoog ni ma ko santaane yàlla da ko koy delloo loolee ñu war koo gëm war koo topp heure bii démb bi ñu fi dajee waxtu wi ba ñuy julli tisbaar dañoo julli ñeenti rakka rakka yépp dañ koo yelu lu tax ajjumay tey ñu daje fii def ab xutba te bu ñuy julli tisbaar ñu yemele ko ci ñaar dong di ko wax ci kaw ndax nii la ko yonent bi aleyhi salaam santaane lii ñu def ci àjjuma ak tey jii bu ñu ko defoon démb zéro lay doon lee ñu def démb bu ñu ko defee tey zéro lay doon loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax misaal la rek buy ëmb nag lépp diine bokk na lu yàq diine nit ñu bëri dañoo jàpp ne mbir mi maadaama baax na rek baax na déedéet mbokk jullit lépp lu baax daa am fu mu baax tey jii kaddu gi gën ci kaddu yi mooy laa ilaha illa allah waaye jàpp naa lu ëpp ci yéen xam ngeen ni ki ñëw taxaw di julli yëkkati ay loxoom ne laa ilaha illa allah commencé jàng fatiha yéen ñëpp xam ngeen julli gi baaxul a lu tax julli gi baaxul laa ilaha illa allah moo gën a màgg allahu akbar di naam laa ilaha illa allah gën a màgg allahu akbar waaye place boobee lañ fa digle mooy allahu akbar loolu it moo tax ba da ngay dégg ku naan zikr sàngam lu ci nekk jëf sàngam lu ci nekk la ca nekk mooy yonent bi diglewu ko maadaama yonent bi diglewoo ko diglewoo ko ni nga koy defe yow baaxutul loolee la nit ñi war a bàyyi xel ñu xam ne it teqalikoo yonent bi tere na ko lool nee na bu leen teqalikoo heure bu ngeen teqalikoo da ngeen néew doole ca seen kattan day dem te loolu yàlla ko wax laa tanaaza'u fa tafshalu wa tazhaba riihukum amul lenn loo xam ne nii mbokk mën naa gën a taqali jullit ñi ci lu mel ne bi daaw bidaa rek koy taqale jullit ni sunna bii fi yonent bi alayhi salaam bàyyi ci àjjuma jullit ñëpp ko bokk demal Indonésie ba baa ngay dem Arabie Saoudite Russie foo mën a dem nii la ñuy jullee juma amma biñ demee ba créé ay yeneen waa ji jàpp ne ndaje sàngam day yàllaa ko jaglee lu nu suñ diw ku fa dem texe nga keneen jàpp ne déedéet ndaje bee day mooy ba gën a màgg keneen jàpp ne lee moo gën a màgg kii jàpp ne façon zikri bii day ku ci jàpp moom texe nga say doom texe nañu say sët texe nañu am keneen ku ne déedéet da ngay tardé bii moo gën a gaaw mbokk lii moo teqali jullit ñi tey kullu xisbin maa ladayhim farixoon ku nekk la nga xam ne jàpp nga ko nga daal di ci bége xeeb sa morom ca loolu waaye bu doon ñun ñëpp dañoo daje ci alquran ak sunna daje ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu ka suñu tur mooy lan mooy muslim muslim ñun ñëpp ay jurit lañu suñu jubluwaay mooy kan suñu boroom suñu royukaay mooy kon yonent yàlla su ko defee mbokk mbooloom yëpp day ànd ci jàmm loolee kon ku ne ci ñun góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax rasul sallallahu alayhi wa sallam ba mu paree ci xutbaam ba wax ne ay yéen sahaaba yi yàlla day dana ma leen laaj yowmal qiyaama ma bu boobaa lu ngeen di tontu ñu ne ko yi mu yàlla yónni daan tontu ne jotti li nga li la yàlla yónni woon laaye nga biir laaye nga biir xeet bi jihaad nga ci yàlla dëgg-dëgg jihaad mbokk sahaaba ya xalaatuñu woon créer bidaa ndax ñoom xam nañ ne yonent bi la yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko jottali ñu ko ba mat sëkk looloo tax yu ah ku mel ni imaamu Malik daana wax ku sos ci lislaam benn bidaa ba pare jàpp ne lu rafet la faqad zaama anna nabiya xaana risaala képp koo xam ne créé nga bidaa ba pare jàpp lii lu baax la da ngaa jàpp ne yonent bi dafa trahir xeet bi lii lu tax waxu ko woon te suñu borom nee na ko mo jottali lu mat sëkk saxaaba yi seede na jottali na lu mat sëkk loolee kon mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax su ko defee mbokk xutba boobu nga xam ni tënkal nañ leen ko ci tënk googee yonent bi yëkkati na loxoom bu tedd ba daa dina allahuma shahad ay yàlla seedeel ay yàlla seedeel jëme ko kaw asamaan looloo tax ba mbokk julit yahud yi nasaraan yi waxumaa julit ñi dépp ñoom ñépp dëppoo nañ ne yàlla mi ngi ci kaw asamaan ba ñu demee nag ba ay xalaat jóge ca Inde ñoom ñoo jàpp ne yàlla ngi fépp yàllaay lépp am ñenn ci ay jullit ñoo xam ne jël nañ loolu pas-pas yooyu ba di ko jàngal seeni mbooloo yàllaa ngi fépp yàllaay lépp léedéet mbokk jullit allah jalla wa ala lii ñu ti mooy asamaan benn ba juróom-ñaari asamaan gannaaw ba yàlla xamal nañu ne am na kursi moo fa nekk gën a yaatu asamaan yeeg suuf kaw kursi arsh rahman moo fa nekk ca kaw arsh la rabbul izzati wala jabarut nekk muy suñu borom jalla wa ala bu la kenn gëmloo ne yàlla ngi fépp lii la yonent bi terminé loolee kon mbokk julit mooy xutbatul wadaa donte ne ñi ngi koy fàttali ci jamono joo xam ne nii it mbokk jamono bu tiitlu la natt bi ñu yàlla nattoo di corona yéen ñëpp yéen a ngi yëg dellu siwaat ba mu dellu siwaat ñetteelu yoon ci noo xam ne noonu la gën a tare su ko defee nga la waay ñuy bàyyi xel bu baax ca la nga xam ne mooy matuwaay yi matuwaay yooyu la ca jiitu mooy ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa nañu digal képp ku xëy suba ci yéen nay wax bismillahi lazi laa yudurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim nee na ku xëy suba wax ko day dara du la lor bi si keroog daa nañu digal suñuy xëyee ñuy wax ñetti yoon auzu bi kalimatillahi tamma min charri ma xalaqa auzu bi kalimatillahi tamma min charri ma xalaqa nga wax ko ñetti yoon comme bismillahi lazi laa yadur maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama boobu yéen ñetti yoon comme ni ma ko waxee woon waaye mbokk ci dajekaay yi yéen a ngi gis sunu autorité yi ñi ngi ñaanaat mbooloo mi ne képp koy dem ci ay daje nay takk maskam ngal la waay loolu mbokk xam leen ne bokk na daje yi gën a seere yi gën a compliqué mooy daje jàkka da ngeen di sësaloo ànd rukkoondoo ànd sujjóotoondoo ngal la waay place bi nga sujjóot tey ba ba quelques heures après sa moromu jullit moo ñëw sujjóot fa loolee ku nekk ci ñun ñi ngi koy ñaan buy ñëw ci jàkka ji mu takk maskam dana la suturaal waaye yi suturaal mbokk jullit yi nga dendal dalal xelu ñi nga dendal tey jii boo dendeeg nit takkoo masque boo sëqatee xelam ma ngay tiit boo tisoolee xelam ma ngay tiit ngal la waay nañ góor góorlu wàcc loolu ñaan yàlla musal ñu ci fagaru suñu kemtalal kattan yal na yàlla fegal ñu musiba yi korona yal na yàlla yëkkatu ko ci kaw suuf moom mi ko wàcce ci kattanam yal na ko yëkkatee ci njéggalam ak yërmandeem mboolem ña nga xam ne dañ caa faatu yal na yàlla defal leen àjjana muy seen wàccuwaay ña nga xam ne dañoo nekkoon ay julit ca bokk ca ña ca faatu mboolem ña nga xam ne ñoo tëdd ci kër yaag hôpital yal naa leen gën a xam yal na yàlla saafara leen ci jàmm yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira allahuma inna nauzu bika min al barasi wal junun والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون ومن ومن الجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبحان سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين